jàmm naa la. maa raw. maa nii rek ñuy teel teel rek. da nga moom alhamdulilah jamono ji. Ah. waaw. daa mel ni yaay bañ de. moo sax maa nangu. jamono ji maa ngi nangu. Ah, waaw ñu gis wàcce booy jëlaat beneen booy. waaw noonu la xam nga boo jëlee beneen booy daan beneen booy da nga jël beneen booy ndax nga taay ci ay booy. da moom. ñoom moom booy moom xam nañu dama jaarukaay moom mooy loolu ko mais bu dee ñeneen ñi mag ñi jaarukaay yi bëgg def dañuy am doole mais booy yi ëpp ñu ma doole mënuñu ma ëpp doole dàq ñu ma bëri ëpp ñu ma fit moo sama commande ñoom sax du day métti. ñu gis ni ba ngay ba ngay fii Laurent Ndiago da indi doole yu wër indi entraînement indi expérience lan la. waaw mais xam nga booy ba bëri ñoom ñoo xam naa leen ma sama entraîné tuuti man maa leen gën a dëgër te maa leen gën maa leen dàq noppaliku te te li may lekk amaana duñ ko lekk mën nañ lekk ginaar ak yàpp mais man li may lekk du ma lekk ay yooyu yeneen lekk laay lekk yi bokk lekk lekk yooyu xam nga man damay lekk ay lanti te booy yi boo laajee lanti kañ nga koy lekk lu la ko wax lanti. lanti yàpp. non boo ko doy. saa yàpp booy di ko fawee. lanti ndambe lanti am yàpp. waaw booy xamuñu loolu ay ay kii ay kii ay soppi mboq booy ay fonde lay naan rek. mais donc hygiène de vie ngay wax hygiène de vie. laa wax moo tax nekk ba tey nii soppi mboq la matin naan ci boo ñu fees boo ñëwee laal mburu ñaari sur le plat mayonnaise café Touba bien ségué lekk ko naan tëdd fan yi gis benn vidéo di circulé ñu gis nga dugg écrit jàmbaar di joxe ay clé yi nga clé yooyu ngay joxe du tax booy ragal la. non non non joxuma clé de ndax fa jaaroon fekk fa benn coach bu jóge France koo xam ne moo doon entraîné Papa moo tax ma dama doon entraîné ji demoon ci Modou Baye Fall di xool sama oto bi léegi heure entraînement jot na ma ne xaaral jaar daw longue distance léegi moo tuma toog ngoon te entraîné wu ma ndax laa ma maa ma entraîné gis daw song ma xam nga bëreeg man foog man war ay technique génn quoi ndax man sama rakk la xam na lu bëri loo xam ne ci man damaa ko def ma moom. ah non dama laa topp damaa xam ne xam ne premier grand combat fëgg la yaakaar naa instant yii instant tuuf. waaw ne xam ne ko gën a yi xam nañ ma xam léegi boo gisee xale yi di bëree bëre bu yomb lu mu lay def. bëre bu yomb rek moo tax boo yi nii mën nañ jëlee di bari dañu am problème am na mbër yu fi coow li may nuyu yàlla baax na ñëpp si kanam mais mbër yi jël ni ñuy ni ñuy coow nii. billaahi walaahi talaahi su ma leen jàppale ma leen daan. bëree ko si booy. non non doo doo ba xaaju boobu ba pare xaaj dama jël booy ba digg bi jël mag ñi. Ah, escalier ba pare doo ko songu ponkal ndax non man fa laa nekkoon ci ponkal laa nekkoon dama wàcc rek. mais fa laa nekkoon ci ponkali damaa wàcc ci booy yi léegi moo ne ma baax ci booy yi damay yéegaat ca kaw. boo jógee si Boutina si kaw nga jamaat. waaw Boutina Boutina bàyyi ko rek. ku ne xam ne Eumeu Sène dafay war a bëree ak Sa Thiès. waaw combat bi nu mu koy analyser. xam ne combat mag la te combat bu mag moom sa sa bopp dalaa doy sa kër barke beneen boo ci wax da ngaa waane làmb nga. non problème lamb moy pare ko fi bo génnagul ni mo wax fa ndax lamb lay tourner man nga wax lo xamanteni yow lay yow lay dal lamb ke li sa combat rek mu leer ya xam benen mais man ma do bëgg di jël ba mu leer leeragul la c'est daanaan ak Bathie Seras wala joy wa Bathie sama way la ma ma bëri nañ loo xamante do doo am ci aduna suma xarit la. lamb neexatul de. lamb neexatul mais mi neex mi neex mais nak mi ngi neexati. ndaanaan yi ga Lirou Diane gis naa mu attaqué la Lirou Diane man dama wax Lirou Diane Grand Diane laay waxal dama wax Lirou Diane Grand Diane laay waxal nee ko ne wooyee Grand Diane a moom xam laa dëgg na man Ola Basul laa laay wër dëkk bi soo mel xarit boo xamante ni Ola Basul ah. su ma gisee du ma am dara lu métti ci àddina su ma gisee gis ak métti ci man Ola Basul woo naa ko mu ngi seetaan na ko ma yëpp na gis ko moo yombul woo ko ba ko yombul yàlla ko yàlla dafa jàmm. Ah, xarit naa la. maa ngi nii. sant borom Tuubaa rek. Gaston production. ñëpp fa ñu si jàmm ba. ndax seen journée yi li ngeen waaw gaa yaa ngi waaj waaw gaa yaa ngi waaj. avril. incha mu nekk journée bu neex. boo xamante bi am na combat yu ci am parce que bul taxaw na combat ak Jacob Balde. Alliance Balde aussi ak Cikiri Caajo taxaw na. Mame ak Bébé Gouy Gui taxaw na Doudou Sané ak Garga 2 Boy Jaxaaw Njaga Doole Caatu Yof Caatu Yarax Gammu Gueye ak Ndiaye Tine grand combat Alioune Seye 2 ak Coens dama gis Gaston gi indi ay combat soog yu amateur yi bëgg combat soog lan la waaye yooyu yëpp Abdoulaye la rek parce que boo ànd ak boo xamante bi nii da lay taxawal ba di la yéene loolu moo tax Père Gaston jox ko confiance mu and ak magan frère mu jox ko confiance ñu and di liguey rek wa ndana ni sa buñ waxtane rek lamb yu neexi taxaw wa dañu jóge fofu ñaamu ndaw ama neex bi amna amna dal wa amna dal le 28 juillet la inshallah ci diggante ñaamu ndaw ak ama neex moy tëj saison bi moy moy finalu kalaaf bi aussi wa duñu jóge fofu dañu de Gaston production mi ci combat bu mag diggante Boy Niang ak Reug Reug mun nga mako wala leer na wala leeru. eh ya loolu de yaa ma wax. man damay laaj donc damay laaj rek. non loolu laa ma ko wax Gaston Production daal signé na ak Reug Reug contrat pour adversaire ñi ngi wër nag amaguñ parce que lii nga may laaj sax du sama domaine Abdoulaye moo ma ko gën a maîtriser mais man li ma fekke tey xaatim nañ contrat mais defuñu ci benn turu mbër benn turu adversaire Reug daal am na combat. mais dégg nag diggante mag booy ñaan gaay di dox. wallaay loolu leer dara leeru ma si daal am na combat mun na bëreeg la de mën na bëreeg Ama mën na bëreeg Boy Niang mën na bëreeg Gris mën na bëreeg Modou Lo mais Reug Reug moom am na combat saison de lutte 2024 2025 ak Gaston production. damay kenn foofu ba ma xam la bi après koor gi réew mi dina yëngu de. lu koy yëngal mbaa jaam. après koor gi mois de mai. waaw diggante Franc ak koy ak Bombardier. waaw day neex parce que le premier mai bul fàtte ne jàmbaar production ñoo ñëw andi Franc. ak nga xamne moy Bombardier Franc di champion 12 combat 12 victoire musul dégg mu ñal musul mita musul dem ardo facilité lay def moy noppal arbitre yi ki aussi tamit di champion roi des arènes deux fois am lu mu def ci lam ñu jël Talfa booleeg Youssou Ndour jël xalé bi nga xamante bi ni moy mbay job Safara booleeg ki nga xamante bi ni mooy Ñang euh, balo comprendre jël Mamadi Ndiaye boole ak xalé bi nga xamante moy Njaga cham jël caatu piyool bi boole ko caatu limousine ay combat yu neex a neex yu jàmbaar production taxaw. amateur yi seen yaram daa tàng après koor gi. waaw day neex parce que la premier mais am na. le la Diouf Diouf production. le 4 mai Mor moo andi diggante Bébé Jackson ak la joor Bekaay ak xale bi nga xamante bi nii mooy Fourier loolu tamit la 4 mai la. le 5 le 5 mai diggante Eumeu Sène. le 5 mai nag Alburax dañoo ñëw jox gars yi ndéwénal bu sakkan. loolu laa loolu dafa neex. Eumeu Sène ak Sa Thiès. Eumeu Ndiago Pokola Tafa Mbër Mor Kankang Cheikh Niang Wulli Mbul ordinateur non bari na de des na de. jaww de dix mille jaww de dix mille problème bu ram daal. laa ilaha illallah en tout cas Albourahane dañ leen di féliciter di wax ne combat yooyu moom ku mandiwul làmb dootoo mandi làmb làmb li si gën neex mooy nga ñëw toog di seetaan do ñibbi supporters yi du ñibbi amateurs yi du ñibbi da ngay gis fi lamb benn mbeur bu bëree daan ñepp daw ñibi mais le 4 mai le 5 mai mbeur bu daan ak bu daanu da ngay toxar xaar. promoteur li ñu commencé def dafa raron ci lamb combat sok wa parce que mbeuri bu ñango rek promoteur yi taxawul combat li problème bi moy mbeuri ñoy bañ da ngay ñew ma wara a bëreeg am nga may laaj sama combat ak am mën la jox ma jara te ma raw momo mak ci lamb momo man ci lamb neena ala mbeuri sa bu ñu nango rek. wara promoteurs yi doon tëgg làmb ji ba tey ñu ngi fi ménager yi ko doon signé ñu ngi na mbër yi bëgg rek combat yu neex yi taxaw ah. combat yi neex na. non neex na trop boo limee daal da ngay jum en tout cas le 10 mars aussi tamit Jib Seen moo ñëw Jibi Pogba Teranga production ci diggante xale bi nga xamante bi ni mooy de ak ki mooy Bour Sine le 9 mars mooy tëj làmb ji ñu dugg ci koor gi fëgala bu ngoor jeex jàmm Bib Diop xale bi nga mooy Ardo lool Ilimane Lo moo ko tëgg DG de Njàmbur production combat yu neex la daal suba tamit la 25 bi waa CNG ñoo fi teg 5 millions di wax ne mbëri bu leen ragal bu ñu tegee 5 boo daanoo doo dee boo daanoo doo ñàkk sa doo ñàkk sa jabar doo ñàkk dara tous du la jot da ngay daanu ñibbi wala nga daan ñibbi ñëw leen ngeen dàq seen wërsëg 5 millions la poids lourd ak poids léger 3 catégories waaw damaa nekkoon sama ruq waaw. mais daa mel ne nga bëri xaalis ba nga bëri wule ba léegi xoolal tey ni nga ñëwee. non du loolu sax euh, sutura yàlla rek moo fi ne ñu ngi sant yàlla moom mais alhamdulilah quoi du nuyu waa Casamance bu ma jugee yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex si kaw ba si suuf ñaanal naa ñëpp. Mm-hmm. Alliance Baldé temps yi ñu gis nga commencé teg la ay defet lan la lu xew Alliance Baldé. waaw comme lu may wax rek làmbale rek ku doon may sa bopp moom yaay ëppale mais ku dul may sa bopp lu la yàlla may da nga ko koy gërëmee ñun ñu ngi sant yàlla ñu ngi préparé yeneen combat muy suma digganteeg Cikki Cikiri Thiaco. waaw mu si journée Gaston production. ñu gis ne Alliance Baldé temps yële pass si ginnaaw Alliance Baldé dafa jël laamu ba si biir gars yi ne Alliance Baldé daa commencé foowee laamu lan la. gàllankoor la tolof tolofu laamu la mënul ñeex mais bu ñëwaatee ñëpp dinañ xam ne Alliance ñëwaat na barke Serigne Saliou Mbacke. ñu gis ne la 28 jël nga combat du woon làmb man ak Plateau mu ngi fi woon. man ak Seck ndaanaan yenen combat mais comme lu ma rek làmb du maas ak dabante la mbeur la mbeur la combat bi taxaw na mu ngi and ak mbokk man ak samay mbok yalla suñu borom defal ma ndam ci combat Seydina am mais bis bu ma le 28 parce Serigne Saliou bu alliance indiwul entraînement indiwul doole yalla nañ ma daan. mais alliance bes wallahi barke Serigne Saliou dama ko jël sama décision bopp la. tay xam nga xam nga xam nga laa jël fu mu la mën a tay na xalé yi ku lu ñu wax rek alliance ba la ñuy jàngee yek waaw non la démé lool la wax ñom ñëpp. mais daa am lu ma bëgg a wane mooy fii du yéegukaay te incha allah ci combat bi laa koy wane. temps yii ban équipe nga nekk. maa ngi fu ma nekkoon Pikine waxi naan. li nga def fii ngeer ba léegi. waaw ngeer mu ngi fa maa ngi fa clandestin mu ngi fa maam xaa bëri na ay mbër amul tëdd fii ñëpp ay morom lañ. <laughs> sa digganteeg waa Pikine. waaw jàmm comme lu may wax rek booy ñaa suñu grand frère Ama Baldé Eumeu seen parce que tey lu may wax rek ñoom ñëpp ñoo bokk luñ bëgg. da nga xam nga ñu bokk ñu bokk baag ñooy laxasoo ay góoj nañu bokk ndey bokk bàyyi da bañ a déglu wax ju sew yi borom borom borom néegi 7500 yi ak borom téléphone simple yi def seen vidéo pour tas Pikine nañu baay loolu xel xam na ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Mhm. ngay doomu Pikine boo toogee tey dégg ay coow Pikine Pikine tas na seen mbëri seen mbëri toroor yëpp daan nañ leen yéen ngeen nekk xale di ñëw si làmb boo leen déggee lu mu leen def yéen. no daf ñuy metti daf ñuy metti parce que ñun si ñoom la ñuy roy. kon su ñu gisee si ñoom ñu am beneen kanam bu ñu taxawee wala beneen tàng dafay am lu muy nduru boo xoolee alliance du ferekante mbër amul benn mbër bu may dem sa kër boo ñaan sama combat bi passé xaalis bari la ma may Ama Baldé noonu mais amul benn mbër boo xam ne ne alliance day ñëw sama gër amul parce que gis nga doomu aadama li ñu koy nawee buy sang du ko summi kon nañu bokku ndey bokku bàyyi ñu xam ne làmb day jeex benn fan la waaw jërëjëf jërëjëf am kontaan nañ si yow waaw jaajëf